ci vingt 22 ci côté Auchan bi daanaka Auchan bi sax dafa mujjee tëj ndax nemmeeku nañ ne xale yaa ngi fi di jàmmarloog ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi sànq ba tey euh, mbir moomu euh, mu ngi am fii bu lay station Shell tamit moom également dafa mujjee euh, tëj ndax jàmmaarloo bi métti na loo ci diggante ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi ak xale yi parcelles yi daanaka métti na lool ñoom nag taal nañu fii fii moom mën nañu daanaka dem beek dikk bi tega témbe na lool ndax ñoo ngi euh, baare tali bi xale yi également euh, ñoo ngi euh, jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi ak ngir jàmbaarloo ak xale yi. loo xam ñun ñii di wax ak yow ay mécanicien lañ ay responsable lañ dañoo yor ay jabar yaa ngi dégg nekk ay responsable yu mat. mu ñu sañoon du ñu génn ci tali bi nii booy di rayante ñu ngi nii war a joxe dépense tey na la ñuy def pour joxe dépense amuñu ko dama koy ñaan man du ma la ko ñaan doo ma ko may mais am na parent tey su ma jëmee sama jabar lan laa ko yóbbul amul lu ma ko yóbbul ndax lan ci ay ñoo xam ne tey ñoom am nañ seen lépp matal nañ seen lépp ñun mataluñu ñu wax Sénégal man boo may laaj Sénégal ba gën a metti mooy maçon bi nga xam ne day liggéey dix ans du am sax kër mécanicien boo xam ne oto day paan mu ñëw liggéey ba defar oto bi te doo xam nan la ko defaree mënul am sax kër nga gis benn ay jàpp feccikat jàpp seeni loxo di génne seeni i ween ñu leen di jox ay passeport diplomate dafa neexul dañ ko wax dee dañoo sonn voilà loolu moo fi nekk ñoo ngi fii euh, croisement 22 ci côté station Shell bi ak ñi nga xamante ne euh, mooy euh, xeer yaa ngi ñëw de libaas puusal daanaka xale yi euh, fi nga xamante ne moo di mbeextee bi war a jaar foofu la taxaw foofu la ñuy awale sax maanaam xeer yi libaas arrière xëy na ngi jugee ku nekk. donc xale yaa ngi jàmmarloo ak euh, takk der yi ñoom nag ñi ngi gën a yokk te ñi ngi sax avancé. ñoom nag euh, fi mu ne nii dañuy engagé ñi nga xamante ne ñoo di takk der dañuy gën a yokk sax nag te ci côté bu nekk la ñuy fëlee jamono ji policier yaa ngi poli euh, booy yaa ngi engagé ñu ngay gën a yokk booy yaa ngi gën a yokk takk der sax fi mu ne ñu ngi xaw a dellu gannaaw métti na torop ci diggante takk der yi ak xale yi fii nii ci croisement 22 côté station Shell bi ak euh, Auchan bi mbir mi daal tàng na jër fii nii xale yaa ngi defante ak ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi finalement sax fi mu ne nii takk der yi ñoom it ñu ngi buñ gisee ay xeet sax dañuy sànni ndax affaire bee leen commencé ëpp loxo xale yi dañoo gën a yokk te ñi ngi avancé di jëm si di jëmal si ñi nga xamante ne ñoo di euh, takk der yi gis ngeen ni ngeen ko xamee ni station bi sax daanaka daa mujjee tëj ak Auchan bi nga xamante ne moo nekk ci croisement 22. gi daal oto mënul dem oto mënul dikk voilà oto police bi mi ngi avancé ndànk-ndànk comme ni ngeen ko gisee parcelle daal fi mu ne nii ñoom it ne nañ waa Medina duñ leen duñ duñ duñ bàyyi ginnaaw waa Medina ndax Medina sànq tàngoon na jëpp ba ñu jot faa taal ay ñaari ñett bus Dakar dem dikk donc fi mu ne nii xale parcelles yi ñoo jël xale yi parcelles yi daal fi mu ne ñoo ngi defanteeg euh, takk der yi ñoom takk der yi sax ñu ngi ut ay renfort ngir jàmmaarloog ñi nga xamante ne ñoo di xale yi parcelles yi. dañoo mujjee sax euh, seen seen boobulee fourgonnette daanaka am na ci veet boo xamante ne dafa daal di toj. barrage yi nga xamante ne xale yi defoon nañ ko ñoom ñi ngi ñoom euh, takk der yi ñi ngi avancé di dindi barrage yooyu fii daal euh, mën nañ ne daal euh, yoon bi taga tembe na oto demul oto dikkul ndax mën nañ ne xale yi ak takk der yi daal ñoo lëmbe tali bi fi mu ne nii fii nag boo seetloo daanaka boutique pharmacie entreprise daanaka kenn tijjiwut station bi nga xamante ne moo ñu gën a jege sax ak Auchan bi ñoom aussi daanaka tëj nañu weeru station bi également mu nekk lu méttee métti te booy yi fu ne la ñuy fëlee da ngay jékki-jékki boo leen xaaree ouest bool yi booy yi fël noo ñoom dafa mel ni ay ñoom dañoo am ay renfort ñoom aussi. lacrymogène yaa ngay dàqante. policier yaa ngi avancé comme ni ngeen ko gisee policier yi ñu ngi euh, takk der yi ñu ngi avancé xale yi tamit dellu nañu gannaaw ngi noonu comme ni ngeen ko gisee fii daal tàng na jër fii ci euh, parcelle Parcelles Assainies croisement 22 daanaka mbir yi tàng na lool ci diggante takk der yi ak xale yi comme ni ngeen ko xamee euh, station Shell bi euh, boutique bi daanaka xale yi ñoo ko nekkuñu fi woon waa. Ah, verre yëpp toj na boutique bi. Mm-hmm. mu nekk lu doy waar. ñu ah, ngi amee fii ci croisement 22. dañ ah, ko tojotee verre yi ba daanaka sax amatul. Euh, donc takk der yaa ngi avancé xale yi itam ñu ngi dellu gannaaw daanaka sànq sax fii eh, kenn mënu fi woon a aw waaye Sonatel bi nag eh, moom aussi eh, la xale yi bëggoon a. yëpp liggéey. loolu laa mun a wax ak song dañuy ñëw dañ leen di sànni. waaw kooku manifestant la bi daanaka xale yi aussi. dañ koo saccagé ndax gis ngeen ne ni toj nañ ko mu ngi noonu daanaka verre yi euh, yëpp toj nañ ko ba daanaka bunt sax doo ko fi gis lépp jaxasoo na xale sax dañoo bëggoon ñi nga xam ne dañoo bëggoon attaqué li nga xamante ne mooy di Sonatel Couragement 22 bi ba tax euh, ñii di taq der yi ñëw fi taxaw temb ngir tere leen lu ni mel. mi ngi noonu gis nga sax ay takk der yu taxaw ci buntu Sonatel bi ngir waaw ah, am na benn xale bu ñu jàpp ay waay xale la kii xale la mu ngi ci biir ñuy dugal dóor nañ ko dóor nañ ko ndeysaan dóor nañ ko te kii xale la sax xale la ah mi ngi doon am na sax lu ci doon jot a tàkk waaye mujje nañ ko arrêté am na sax luñ ci jot a yàq mi ngi noonu aha boutique orange bi fi nekk ci euh, croisement 22 xale yi commencé woon nañ koo saccagé ci noonu sax la takk der yi ñëw ba mën leen a ba tere leen lu nu mel donc comme ni ngeen ko xamee ah, donc xale yaa ngi avancé di jëm si si ñi nga xamante ne ñoo di takk de yi xale yaa ngi avancé waaye ñoom aussi ñi ngi sànni li nga xamante ne moo di grenade lacrymogène xale yaa ngi avancé di jëm si woy takk der yi waaye barrage yi nga xamante ne xale yi tegoon nañ ko ngir ñu jaar oto bu ngi nekk di ko dindi pour pour am fu jaar ngir mën a avancer ngir jàmmaarloog xale yi. xeer yaa ngi noonu xale yi bàyyeeguñ ba léegi ñu ngi sànni li nga xamante ne moo di ay xeer policiers yi également ñu ngi riposté ak ay euh, grenade lacrymogène mu nekk situation bu doy waar fii nii ci euh, croisement 22 Parcelles Assainies daanaka lépp luy xeetoo ak boutique walla sax euh, ngay bërëbu liggéeyukaay daanaka dañ koo tëj fii daal mën nañ ne dem beeg dikk bi tagga tembe na fii ni orange bi ndax daanaka kenn demul kenn dikkul xale yi kese ñoo fi nekk ak ñi nga xamante ne ñoo di takk dere di jaamaarloo gi mi ngi wéy di euh, continuer mi ngi noonu xale yaa ngi taal daanaka seen ginnaaw taal nañ fa bu mu ñuul kukk taal nañ également côté fi nga xamante ne la BRT bi war a jaar ñoom daal bàyyeeguñu ba léegi daanaka mu ngi noonu situation bi daal mi ngi bëgg a dégénéré ndax daanaka waxtoo ngi nii autopolis bi nag dafa wiiri autopolis bi wiiri na daanaka dafa mel ni kuy kari ji xale yi autopolis bi mi ngi wiiri mel ni kuy dem di euh, kari ji xale yi ngir euh, ñu bàyyi manifester yi nga xam ne lañ leen di tere ak euh, taal bi ñuy def ba tax ak yoon yi ñuy bare ba tax nga ñu nemmeeku ne daanaka fii moom dem bi ak dikk bi tagga tembe na lool boutique yi jege fii pharmacie entreprise lépp lépp dañoo mujjee tëj ndax yaakaar naa ne condition yi nga xamante ne la croisement 22 di dund jamono ji du condition yoo xamante ne nit mën na fi nekk sa waxtuma laa nga ne da nga liggéey donc mën nañ ne li xew tey euh, le 16 mars bi nga xamante ne la Ousmane Sonko waroon a wuyu ji kii di juge bi ci procès bi nga xamante ne mooy moo ñeel digganteem ak euh, ministre du tourisme di Mame Mbaye daanaka nemmeeku nañ ne presque Dakar gi yëpp dafa nekk en feu ndax booba léegi gox yeeg gox goxaan di ne ci ndakaaru wala sax yeneen euh, région yi ñu ngi fay nemmeeku ay manifeste ñoom nag nee nañu dara naqariwu leen lu dul Ousmane Sonko di leader Pastef bi nga xamante ne dañ ko bëgg a jaay doole daal di koy tëj wala sax tere ko mu nekk candidat à l' présidentielle bi nga xamante ne jàpp nañ ko la le 25 février 2024. ñoom nag nee nañu lu mu jaral nguur gi rek jaral na leen lu ko raw waaye duñu nangu mukk ñuy liquider bile adversaire oh, politique orange bu ñëwoon nañ fi léegi libaas daanaka toj nañ verre yëpp yàqate ko saccagé ko ndax ñoom ndax yu la base ñay xeex ñëpp xeexi ji xeexuñu xeexaan ñu ñoom policiers yi ñu koo ci xeexal ba léegi moom mu romb la bàyyi la su la boo dee sa yaay ñax bàyyi ñàkk da ngay liggéey pour xaalis nañ bàyyi sànni xeer yi te liggéey moo gën père de famille la donc mbir mi métti na ci ñoom te daanaka ñi nga xamante ne ñoo waral li ni mel ñoom yëguñu sax ne lii am na ndax problème bi ñoom duñ ko yëg daanaka ñoom ñi nga xamante ne seen loxo daanaka jotu seen ginnaaw ñoo yëkk li nu mel mu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax te waxaat te ñu ngi waxaat aussi également ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bopp nguur gi ñu delloo siwaat seen xel lool ñu ngi fii ci euh, voilà ñoo ngi fii nii ci croisement 22 côté orange bi daanaka mbir mi euh, xaw na fee métti lool ci diggante ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi ak euh, jeunesse bi mu nekk lu doy waar ndax daanaka booba léegi ñu ngi nekk di jàmmaarloo ak euh, xale yi te ba léegi euh, bàyyeeguñu leen di dem bàyyi leen bàyyi leen bul wax def ñu bul waxate ñoom bàyyi leen rek toujours xam na loolu ah boy réglé la nii la bàcc sa kay su nga gaare nga war woon gaare am nan waxal dëgg da yàlla tax boo war na fa gaar mais dafa ndànk arrangé wu leen mais moo ëpp sécurité si oto bi oto bi tey mënoo liggéey ay deux millions mënoo xëy liggéey deux millions wóor na yàlla oto bi ñu ko taalee tey da ngay ñàkk te fi nga gaare ne moo ëpp sécurité junne moo gën gaare ko fu ñu koy yàqee liwaat xam ma la wax bu baax parce que ñun presse bi ñun presse bi léegi gars yi dañoo ñoo xamante ni maanaam dañu dañu mere ñu ne population maanaam dañuy wax nee na ñu faux information la ñu jox loolu tax policier booy yëpp ñu mere léegi te booy bee passé na yi mars gars yi xeex dañ naan booy ñun ñoo tax waaw gars yi di leen xàmmee waaw waaw parce que vidéo yi ñuy kii moo tax man man bu ma ci dégg di jàngal teg ñu dëkk nit bu demee bu àndatunoo sago moo di ñu ma traité ay dof spécial ñoo taxaw nii. sànq de benn boutique laa gis ñu sànni xeer ma ne ko waaye yow mii am nga fit. Hmm. barki yàlla côté bii xam nga fii la xam nga fële muy sànni xeer ay réew la ma def sax ma ne ko dee ma ne ma ne ko dee ma xeexal ma xeexal papa yi kenn. maa ngi soog a ñëw moom. ma ne sama papa sax bu dekkoon ci lii di àddoo eh, di woote di. doom yi ne ay doomam da nga leen gis mu tax. papa yi def donc ay doomam ñu ngi toog seen kër. parce que Seydou dinañ attaqué nii boo moytuwul. jàng seen lu set. boobu jëlee waaye waa ñu ngi dégg lu muy wax nee na xaw ma kon moo jàpp ne ngaa lay waxal nee na du ko jaar ñu toj boppam. caméra bi ne fii rek moo ñu sonal caméra bi moo ñu sonal jëm. waaw ba pot bi moom mënu ma la. daa ngi koy xeex bi xaw ma kañ lay jeex fii ci rond-point croisement benn. doy na waar. waaw beneen renfort mi ngi noonu. mi ngi noonu ñu leen beneen renfort. lii de mën na dem ba guddi. xam nga lii mën na dem ba guddi. waaw ñu nemmeeku ne waa croix ngi noonu euh, fii ci euh, Parcelles Assainies croisement 22 côté euh, Auchan bi ñu nemmeeku rek ne daanaka li tax daanaka ñoom Médina sax Médina sax ña nga fa woon ngir dimbale ñi nga xamante ne daanaka lakk ma leen yi da leen di sonal wala sax leen di indil ay jafe-jafe ngir nooyi ndax comme ni ngeen ko sax na bu la suuree sax boo ko nooyee daanaka da am jafe-jafe sax xool sa bakkan yi itam maanaam day sotteeku dama mun daal da ngay mel ni ku faj waral waa Croix-Rouge ñëw fii ngir dimbale askan yi nga xamante ne ñu ngi dund li nu mel di leen fàttali rek ne xale yi ak ñi nga xamante ne ñoo di jaxate yi daanaka centre sax nemmeeku renfort euh, ngir dimbali seen naataango yi nga xamante ne ñoo nekk ci jàmmaarloog xale yi ba léegi bàyyeeku ñii nañu moom di jéggee jël naat lacrymogène yi nga xamante ne takk der yaa ngi koy sànni mi ngi noonu fii ci euh, croisement 22 parcelle côté Auchan bi Soprim du moins côté Auchan bi jàmmaarloo bi nga xamante ne am na fi koy dem bi ak dëgg bi sax xaw na ci jafe lool ndax am na ci côté boo xamante ne ñi nga xamante ne ñoo di manifester yi dañ ko baaree woon mais euh, par la suite ñi di takk der yi ñu ngi euh, indi li nga xamante ne xale yi defoon nañ ko maanaam baare bi nga xam ne baare woon nañ ko xale bi ngir euh, dem beeg dëgg bi mën a jaar yoon mi ngi noonu xam mel ni ay renf am na am na ay renfort yu ñëw noonu ci kanam ndax euh, ñi nga xamante ne ñoo di xale yi ñoom daanaka ñu ngi ci xeex bi ba léegi daanaka fii moom nemeeku nañ ne calme na waaye si biir koñ yi ñu ngi nemeeku ne xale yi ñu ngi euh, sànni euh, ay xeer ñi nga xam ne ñoo di tax dér ñu ngi ñu ngi ñu ngi delloo xale yi ay naan lacrymogène depuis boobu ba léegi daanaka mbir mi fii daal xaw na métti voilà ay groupe euh, takk der bu seen nale ci kaw ñu ñoom ñu dañu ñëw pour euh, renfort ngir ngir euh, jàmmarloo ak xale yi depuis sànq ba léegi mu ngi nag voilà takk der yaa ngi ñëw ngir jàppale xale yi nga xam ne jàppale seen naataango yi nga xamante ne ñoo ngi fii euh, ngir ngir jàppale seen naataango yi